jëf. am na sëñ bi tubaab Khadija. Aïcha. ak. y' a pas de matière. am na ab ah, total. kilo. ça va grand boubou bi. dama grand boubou la fi grand boubou day ëpp day ëpp day ko solee da ngay exclure une bonne de la population. comprendre fii damay jàppee mag yooyu quoi tu vois. alors que affaire bi il faut que. ku ma doon laaj bu gàttee tey seen Donc, euh, nous, nous, nous, en direct sur euh, votre Aujourd'hui, vous revenez dans Yang Del Secret. Ça ah fait quoi de revenir Taïdi à la télévision pour mener, non pas c'est le DG, wow. mais c'est l'invité qui vient aujourd'hui. Ah, mais, je sais que comme niñ koy waxee euh, jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñëwaat fii nag ci TFM Futur Média lu ma neex la ay souvenirs yu am solo te lépp rafet itam ah, moo tax euh, sama tànk du diis ñëw aussi waxtaan ak sénégalais yi ci beneen yu comme ni nga ko waxee tey jii en tant que leader du mouvement Demain c'est sant ak Pam Ngagne Ndiaye dañu waxtaan dina poser question ma tontu euh, espérer sénégalais yi dinañu comprendre message bi message yu deme c'est maintenant ñu waxtaan surtout lu soxal réew mi ak ëllëgam ndax dañu ne deme c'est maintenant mais ëllëg tey tey la daal. voilà donc comme euh, gis nañu ni ñu ko dalalee et tout on voit que vous avez des relations non pas professionnel ay relation yu jéggi na yoo xam ne c'est juste l'aspect professionnel lan nga mën a wax ci moom tey ak dellu si bi mu des TFM en tant que invité euh, la mooy sa sentiment ci loolu. waaw dëgg la kontaan naa trop tey moom suma xol dafa sedd. Mhm. franchement parler suma xol dafa sedd ci dafa fort ci man dama foo jaar ak man ci kër gi dañ ne beneen vidéo dañ ne sama may secrétaire mu bëgg mu bëgg personnel bi ñu yore woon Mamadou moom daaw déranger kenn liggéeyam la xamoon kilifa la man biiram dama dugg nu ma neex am ñoo xam ne bëggee gis day nekk am solo Mamadou c'est un boo xamante ni day exceptionnel DG. boo xamante ni. gis ko rek di nga kontaan gis nga benn pneu de son dugg na rek. dugg na. maanaam lu foog ci man bu nekk sama bopp moo fu ñu jaar tiitaroo man fu ma gis dama koy tiitaroo même su ma Europe sax dañu mel kamu étoon na mi ton frère qu'est-ce qu'il est maintenant maa ngi jàmm. ku nekk sa vision nga yore ñu fi nekk ñu kontaan nañ de man maa leen gunge di ko indi di ko yóbbu si oto mu ñëm di ñëw en tant que DG mosul changé nag na ma xamee ba léegi noonu mosal ma man kon naxar mu ñëw bànneex mu ñëw di dimbali nit ñi te nag ñun xam ne dañu am gaaw am kersa liggéey la ñu xam man je suis mieux placé pour wax Mamadou mooy kan c'est grand monsieur il est diplomate bi kilifa yi respecté nañ ko xam ne fu mu jëm xam ne li mu bëgg lu nekk nag lii mu def tey ñëw ci këram dafa neex muy da ngay toog gis koo de eh DG Ngom mm-hmm. doon ñëw nañ ko ñaan lii mu jëm yal na nekk njiglaayam yal na ko borom bi taxawul vision bi mu am mm-hmm. bu neexee Mawlana Taala yàlla moom gëmul nelawul buntu ubbi nañ ko ku nekk sa wërsëg ngay jël mm-hmm. te nag vision bi mu jëm dafa am solo parce que nga dem ba xam Sénégal dem ba léegi yow nga bëgg dara ci réew mi. Mm-hmm. donc am na foo xamante ni ñaari kilifa la fa recevoir. Mm-hmm. man ma ak accueillir ministres yi premier ministre yi. Mm-hmm. DG yi ku nekk Maodo bi am na plateau moom fii. archive bi dafa damay toog di ma kër di xool sama archive yi ma xool ñii jaar nañ fi ki jaar nañ jaar nañ fi donc euh, yëpp benn la. dërëm bi gaal yëpp benn lañu suñu nit la ñu tubboon kër jox na borom kër gi cër te moom kër gi xam na xamante ne jox na ko cër. Mm-hmm. ba si biraan ñoom moom mi ngi xam moom moo fi toog léegi moom li ñu def rek mooy émission boobu fii nii xolam seet na ñoom dugaat na këram def émission xam nga ñoom ñaar la dañu waxtaan mm-hmm. dañ ko ñaanal rek. bi mu ji nii yàlla na sotti. Mm-hmm. yàlla waxu kenn dara de adduna bi fa doy waar. yàlla waxu kenn dara. dañ dem nag. léegi daal li ma dem mooy rek di ko souhaité les bienvenus këram. Mhm. vraiment loolu man bi ñu mënee tey dèjà nga am sama xol dafa sedd. Mhm. dama toog xaar bu ñëw recevoir ko bu dee mu ci plateau ba mu pare mu nit mu ngi mu ñibbi. ñu mhm. jàmm ci këram fekk njabootam. gars yi nañ ko ñaanal rek. incha allah adduna moom mel nii. incha allah yàlla yor lépp de. daal loxo yi di wax amiin amiin rek. Ah. donc rendez-vous est pris tout à l'heure waaw ah, sur la TFM en direct incha allah pour l'émission Faram Facce Amin Kamou jërëjëf merci merci